li tax muy jaam bu yónnee ci ab sangam Cheikh Bara ne bu ñu takkoon ak buum ci baatam daal di koy bàyyi ci mbeddi ndakaaru yii nee na képp ko sant Mbàkke di boo ñëwee sañ nga koo for waaye boo ñëwee ba tiim buum gi siggi muy Serigne Bara nee di nga ne kii kat nan ko fi bàyyi ndax cërub Serigne Bara nee tak kii nga xamante ne nii moo tax mu tey yónnee fii nee na daf ko wóor ne tey boo doon wër sëriñ baara ba dugg ci moom boo génnee dinga nga jàkkaarloog sëriñ baara ndax tey ji ku duggan ci ay tànkam di nga daanu ci suuf boo nee sigéet sëriñ baara dina jàkkaarloo ne la maa ko daan ndax yow dugg ci yow danaa ko daan ndax olof dafay wax ni solo ay yére yi warum réew te penc moo dem ñëpp tàccu ne yaa rafet ku ci toppandoo aw naaru góor juum waaye ku la ne jàkk xam ne sëriñ baara moo la teg loxo kon sëriñ baara neena na kaddu yi du guddu du def dara nee na nga ji mu yónnee kit mi ngi koy jaarale ci loxol sëriñ Abdourahmane Mbacke mais nga xamante ni sarak la nee na mi ngi koy joxe ci aw turam nee na mi ngi koy joxe ci ci ci ci ci lépp rek mi ngi koy jaarale ci moom kon kàddu yi mën naa bañ a gudd teraanga la joo xamante ne nii ki la war a war tukki bu la yóbbee bu la bu la bu la ki la war a tukki bu la abbee ak teg noppal na la moo tax mu jënd nag wi nekk ci biti def ko ci oto mi ngi ci biti daal di ne nan ko jox Serigne Bassirou mu doon loo xamante ne sans barkeelu la ci bis bi Serigne Baar neen daal mi ngi lay xamal ne la bis bi nga xamante ni nekk na ci ay xat xat nee na ku nekk ci ay xat-xat nga xàmmee ñaar di nga xàmmee ku la xoj xàmmee ki la xet li xàmmee ki la may nga naan waaye nee na bi mu génnee ci xat-xat yi xàmmee na ki ko xet li xàmmee na ki ko may mu naan te yow xet nga ko may nga ko mu naan kon mi ngi feddli ak doomam ci yow mi ngi feddli ak taalubeem ci yow mi ngi feddli ak ak njaamam ci yow nga doon ab sangam ndax moom mun ta ñàkk guy mbind waaw waaw waaw sëriñ seexu naa mi ne mat na ci seede ndax moom mi nga naan jot jamono ju mu nekkee ci xat-xat yi kon kàddu yi moom mën naa baña gudd ñu ngi nuyu communicateurs yi fi nekk ñëpp ndax ñoom ñoo bokk sëriñ baara te ëppalewuñ ko ci te ëppalewuñ ko gis nañ ko bu baax a koy sant. ñu ngi koy sant. di ko gërëm di ko sant. di ko sant. ci li def sëriñ Abdourahmane mii. li mu def sëriñ Abdourahmane Mbacke mii. ak ni ko jàppee ak ni mu ko jàppee. kon moo boo kon moo njëkk sëriñ bi nee na boo demee nga santal ko sëriñ Baara Ndiaye. nanu may nanu teraanga ji nga xam ne mooy teraangay sëriñ Baara Ndiaye def gis teraangay sëriñ Baara Ndiaye def gis ma ñëw nii ñu koy seriñ ba Bassirou Mbacke xaali aw ba gaynde baara teraa ngay Serigne Baara Ndiaye def gis moo nekk nii ana Serigne Modou Dieng ñëwal Modou jërëjëf waaw kay da ngay taxaw ci wet gi waxoon na waaye day taxaw nii xool ko wuy wuy Modou Modou jërëjëf sama xol seet na boo demee neel Baara uh-huh. bég naa kontaan naa alhamdulilah lii mu def sëñ Baara tax sëñ Baara dana ko fayal boppam